mooy nguur jigéen ci dëkk bi président Macky Sall moo ko bëgg a daganal te du ñu ko d'accord tey du ko d'accord ndax kilifa diine yi ànduñu si islam da ko dàq ak suñu aada ku ne xam na ni kuréel googu nga xamante ñoo jóg pour xeex loolu man mii di wax ak yow contact naa leen nee naa leen jox leen ma projet loi bi ma porte ko pour déposer ko assemblée nationale ndax loolu règlement intérieur assemblée ak constitution bi te la ko may ak nguur gi. te xam naa ne nguur gi parewul pour yóbbu ko assemblée pour ñoom ñu wote ko mais man bu ñu ma ko joxee ma ànd ko ak député opposition yi dinaa jël procès bi déposé table président assemblée nationale ngir que ñu def criminalisation nguur jigéen ci dëkk bi ndax bu leen fàtte ni njiitu réew mi moo dem Italie ci benn seen télévision ñu ne ko ndax nguur jigéen ñi am nañu sañ-sañu manifesté wu ak wax seen i droit Macky Sall ni am nañ sañ-sañ bi am nañu liberté bi ci article constitution bi article vingt cinq moo leen ko may mooy le nouveau droit comme nouveau droit boobu dugg na nag ñu dem ba le droit de chan sans boobu noonu mooy ñi nga xamante ni mooy ñu bees ni te loolu lu ñu ko def yëpp pour jublu pour am xaalis pour mën a doxal seen bis moo ko waral waaye dañ combattre ba loolu fa am ndax kilifa dina d'accord si loolu mooy doon merci